ngir gën a dooleel xeexum feebar yi nga xam ne kenn du ko wàlle moo tax waa réseau de recherche africain fas yéene amal ab conférence internationale fii ci Ndakaaru lañ sa jublu du lenn lu dul fexe rek ba sensibiliser ñi jiite ci solas gën a jublu ci yooyu la xeetu tawat nga xam ne moo ëpp jamono gi lu muy fàtt fii ci dendu Afrique. dañu bëgg scientifique yi euh, yu Afrique yëpp booloo ñu dajaloo waxtaan ci feebar yoo xam ne nii mooy li nga feebar yoo xam du wàlle. Euh, mais mooy feebar yoo xam ni aussi day nekk du wér fi africain yëpp dañ fiy daje ñu xalaat ci yoon woo aussi pour euh, suñu gouvernement yi ñi nga xam ne nii ñoo gérer politique bi ñu waxtaan ensemble seet na nga xam ne nii dana mën a organiser woo ba nga xam ni dana mën a euh, fagoro ci feebar yooyu deuxièmement aussi bu feebar yi ñëwee nan leen di def faj leen recherche médicale di cet gi bëri na ay gàllankoor yu tax mën luñ ko jëmale kanam fii ci dendu Afrique bokk na si mbirum financement feebar yi di wàlle la ñu gën a jox gëdd si wàll gi. malheureusement feebar yi may wax nii nga xam ni ñoom du wàlle amaguñu moyen yoo xam ne nii dañ leen di pour def ci recherche xam réellement Sénégal fun ci toll ak li nga xam ne nii mooy tax feebar yooyu ñëw ak li nga xam ne nii bu bu nu fee bu feebar ba ñëw aussi paj bi Euh, boo xoolee bu baax dafa metti lool cher lool ci nguur gi ak ci population bi. conférence Dakar Call dina nekkit occasion pour waa réseau de recherche africain kaasal médecin yi ba ñu rekk mën a moom seen bopp si lu ñeel la tànnee fu feebar yi nga xam ne yooyee la ñu bëgg di gëstu conférence Dakar Call ñaar fukki fan ak juróom lay doon jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn si weeru septembre gi ñu nekk nii sa si ay boroom xam-xam yu bëri yu bawoo fépp si àdduna ñoo war a teewee boobu lay jotaay